man maay Roqay Sarr di secrétaire généralu fédération des femmes de Tasset nekk 51 GIE de femmes plus de 2500 femmes presque 3000 femmes ñun ñoo leen ñun nag waa groupement Tasset fédération Tasset jigéen ñëpp dañoo taxaw takku tax ja si ginnaaw Mamadou caw fas yéene référendum bii di njëw ñu voté ñun ñëpp wii ñëpp waaw la ñuy wax. jàppale président Macky Sall ba mébét bi nga xam ne moom la bëgg Sénégal mu eggale ko incha allah ñun daal lool la ñu bëgg ñun ñëpp nag taxaw nañu takku te loolu rek moo ñu ñor fi mu nekk nii luñ ci mën guddi suba bëccëg ngoon dinañ ko def ba référendum bi ñëpp wote vi oui au niveau de taset fii ci kër yi nag ñun ñëpp nag jigéen ñi jaay nañ suñu sant suñu jëkkër jàppale ñu jaay seen i sant sant oui ba le 20 mars bu paasee na kenn ku nekk dellu sa sant lépp rek ci jàppale président Macky Sall waaw